jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amoon mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu kilifa di ñaan réew di Sénégal yal na euh, di ñaanal ñi tëdd ci loolu hôpitaux yal na leen sunu borom yëkkati waaye di ñaanal ñi tëdd euh, ci barsaxa yal na leen yàlla yërëm. te jéggal leen te xaar leen àjjana waaye dem ci prison yi di ñaanal ña fa nekk yàlla na leen sunu borom may liberté ak indépendance bu ñu génnewaat euh, félicité sunu frère boobu di Sadio Mané l'international ci soxnaam si nga xamante ni moom la jël démb di leen ñaanal sëy bu barkeel di leen ñaanal yal na leen yàlla may njaboot gu barke di ñaanal sunu joueurs tamit match bi ñu am tey ah, yal na leen sunu borom defal jàmm ak salaam may leen ci ndam ba coupe d'Afrique bi ñu jëm yàlla sunu borom dogal ñoo indi coupe bi yàlla mën na ko te na ko def tey nag gars xam naa dinañ ah guy gi daa feeñ sama caméraman moo ne il faut nga feeñ mënutee ñàkk ma dalal sama frère nag koo xam ne vraiment dafa gore parce que heure bu ko ñu bari soxlaa su ma ko ne allo Ablaye Mbaye danaan ma bu ma woote ñëwal ñu ànd ci ngor si tamit te mënumaa ñëw ci kër gi te du ma nuyu Alsaan ak seeni surtout Seydina Limaam boobu soxna Jaara Laay maa ngi koy nuyu Alsaan mbaa yaa ngi ci jàmm Pawlish maa ngi lay nuyu di la bëggee maa ngi lay fay bu baax a baax di la fay di la di di di di gën a yeesu sa sa sa maa ngi lay fay bu wér guy gi maa ngi lay fay de sérieusement maa ngi lay fay na moom ma yow ko baax na te sama xarit nga. lu fi coow lu fi am yaa ko wax ju fi am yaa ko wax sa loxo am barke. liggéey ba may barke loxo am barke barke loo def gongo la. yal na la yàlla fay sa xol yal na la yàlla suturaal. tey nag ñu def bu neex laa wuy def tey bu émission bu dóob tey laa wuy def wax tey. mais Pawlish ma laa ma laa fekk nii nga yor nga nga nga ngay xam nga xaw ma jox benn international nii luy problème bi. noonu lii ma tudd damay play lii xam ma nekkee xale damaa ba ma nekkee xale damaa Game Boy. Mm-hmm. man Game Boy laa amoon Game Boy. ma ne ma PlayStation ma am <laughs> ah. bu yàgg ba ñoom ñëwee fi. <laughs> Sénégal kii la bu njëkk a Cameroun boo <laughs> El Hadj mais El Hadj ma su ma ci sama émission na yàqu. am na solo kon nañ bàyyi lii bi ci <laughs> am na solo Pawlish euh, fi ma njëkkee démb euh, sunu benn frère mu di muy Sadio Mané l'international euh, <laughs> vraiment. pardon. <laughs> mais attendez parce que je suis en interview oh. oh. am na solo y a quelqu'un y pardon ku mooy visité kooku àll. parce que nee na euh, euh, fi may njëkkee démb ñu gis euh, sunu benn frère mu di Sadio takk soxna vraiment ñu koy ñaanal yàlla na bi barkeel. ñu bari ni Sadio ki mu takk fan la jógee ki mu takk. borom bitig bi sax bi ñu demee di ko laaj dañ leen man maa ngi doog a xam ne ndaw si fii la dëkk. wax nga wax ji boo waxee ci ba tudd borom bitig bi la laaj ci waxati parce que wax nga wax ji <laughs> jigéen ñi lii rek war na leen yee. lii rek war naa tax ñu intelligent ñoom ñëpp a coupe d'Afrique bi xale yi dañ doon ko préparé préparé préparé préparé préparé mel ne dañ leen ni say yaay seen yaay la ñu war a ngénte suba wala seen papa a takk jabar suba wala da ngeen am vol bii def Amérique ndax préparé ko dem dem dem xoolal xoolal ba fa ba fa ngay yóbbu leen ba fa Cheikh Aïda Diallo yóbbu leen ñu dem di def synergie opéré seen yaram yi seen ween yi seen tuñ yi seen xottu seen xott lépp lañ opéré lan pour zori zori yaa ngi zori tamit dofuñu de dañ leen di jël indi leen utiliser leen ci otti utiliser leen ba bàyyi la ku yet ñu takk xale xoolal Sadio Mané xale bi mu takk xale bu ndaw la takk Sadio Mané ki mu takk xale bu ndaw la takk man ba ma gëj a dégg sàcc sàcc nañ xale bi dafay sàcc la ngay dégg léegi xale yi ñooy sàccaate dem ba Sadio Mané Sadio Mané déedéet Sadio Mané def na loo xam ne lu raar sàcc xale sàcc sàcc Sadio Mané yóbbu na sàcc na xale bi xam nga loo xam ne xale yi ñoo lay sàcc léegi de mais xale yi ñoo mais xale bi xamul luy sàcc dañ ko ni kañ dem rek ba pare mu mu sol xale bi sol na loo xam ne non non non man man xanaa bu jugee ci li dina gën a xam li muy sol parce que xale la xamul lu mu sol sol na fara fara jël ñàmpe teg ko ci kanam gi xale xale bàyyi mel ne euh, ku ku jugee en li mu sol parce que comprendre moo tax ñu ne kii jabar bu nekkoon xale yi dem nañ ci saa dem nañ ci ci ci ci ci téeri ma gi ñaw lu defar seen xool xale bi keppal ma la sol tàkkal ma dërëm yaay fara fara solom bi gën a rafet da cee def ay dafa jël ñàmpe taf ko fi taf ko fi nekk yoo loolu xam ne xale bi comprendre xoolal Sadio ki mu takk te xale bi Sadio Mané ay testem testem la yor de testem du fóonante du fóonante du du rapport du dara alxuraan lay takkal ci biir kër gi ne la tari leen yéen ñëpp ay Sadio jullit waaye te loolu alifas yi xale yi ndaw yi di jaay weesu partout du quoi parce que je parce que ah, xale bi xamul partout du quoi. te intellectuel bay alxuraan ne intellectuel dafa jàng. xale yi fii ko ci kii ñoom dañoo foog ne TikTok. la la ñuy toujours du leen tagg TikTok parce que xale yi yëpp ñoo def ci logique opéré seen weeni opéré seen taat mais nit tey booy sëy ni nga sëy lu naturel taat muus ngay sëyal koo tëddal muus nga sëyal boo màccee muus nga màcc soo fóonantee tuñ muus nga fóonantee tuñ soo beesee muus nga feejal parce que ñoom ñëpp muus dañuy def seen taat yi def ci kew oromage yi def ci sondel muy ruy te nag Cameroun tàng na tàng boo xam ne fan la Cameroun wala Nigéria Coupe d'Afrique fan la Cameroun Côte d'Ivoire tàng na tàng boo xam ne xale bu la sa taata ruy collège sa kii bi ñu bëgg laay ko doykati ñu la foog ne da ngaa da da dal bàyyi leen suñu synergique nag xale am na ñoo xam ne nag dañuy synergique foog ne ni non mais putain de euh, fois rek euh, euh, ñu siiw ñi bu ñuy xaar seen mariage mariage dañuy génn feneen takk koo xamante kenn xamu ko. mais dofuñu fii too fi takk xale boo xam foo dëkk nga tëdd noo tudd nga tëdd kuy sa yaay nga tëdd kew nga tëdd crampon nga tëdd capitaine nga tëdd carton rouge nga tëdd carton orange nga takk nga tëdd sondel nga tëdd nu lay takkee. mais nu lay xoolal xale yi coupe d'Afrique bi xale yaa ngi préparé def seeni shopping pour pour naxuñu zori de seen bopp lay nax zori na te zori zori ñoo gën a caga bay danoo caga caga caga caga caga te nax xale jigéen yi gën a yomb ci lu yàlla bind nax leen a gën a yomb ci àddina da ngay gis zor bu si du si soixante division mm-hmm. xam nga soixante division amul ci vol uh-huh. jël seen photo terrain photo tubaab wala jël photo naar bébé envoyé le message si Snap bi ça va Cheikh lax la faxase ko préparé ci projet entraîné yónnee la flamme nga ne kii am naa faru am naa faru pro te du pro 60 division lay jëy bu ñëw tàppe mooy yu bëree bëri bind ci xam nga bind ci xam nga bind ci kew léegi booy jour yi xale jigéen ñi xamuñu kew ah. te kew yi ni lekk la mais mais dañ koy prolongé dañ ci bind kew bu dee màkk lay jëy màkk bu dee màkk lay màkk la nit fubal hmm. si booy jour yi ñoo bon xale yi góor jour yi ñoo bon. dañuy jël trop màkk dañuy utiliser bu wut mooy yu bëri. def ko seen i vali bi ñuy ñëw bu may fooy see alwaax fii waaxit laay see te waaxit waaxit la de. bi may fooy see waaxit te waaxit waaxit. kenn ki bindi istayni kenn ki bindi xamsa kenn ki bindi salata arba xamsa sitta saba saba tishra bébé Fodjé ñu man sama këla mi ngi tudd tishra te tishra turu arabe la tapé mooy tishra xale jigéen ñi koy xamee wala xamsa wala arba wala samaniya tishra xale yi turu la ñuy bind seen mooy ñu ne fii club bi laay jee te jéewuñu benn club Sadio Mané ki mu takk xale bu ndaw la tak xale boo xam ne arabe ko ñor alxuraan ak Sadio doful Sadio ndekete li muy julli yëpp xelam nga ci xale bi mm-hmm. waaye moom it ku teel a yóbbu xale bi la moom it. ma saba dafa caga trop. mais Sadio dafa caga. Sadio teel na de mais Sadio dama nag lii ma conseillé nag Sadio bu ko def ceeb. bu ko def kaldu bu ko def xëdd parce que loo xamul boo ci boo ci nekkee nag ci rey sa bopp de te kii xale bu ndaw la saa defal nag muy lekk xelam dal mais Sadio Mané mii ma gis mais est-ce que yóbbu ko mu seetaan match bi rek déedéet Sadio Sadio dafa sonn yow Sadio dafa sonn Sadio alxuraan la xam ak jàng ne la jàngal mu ngay jàng muy jàng boo teru saar beeg da lay bàyyi moo tax Sadio xale bi dafa tari saar yëpp ak xale bi dafa lépp la tari na ne kii mooy sama jabar mais nag moom te dafa teel yóbbu tamit sàcc mais xam nga Sadio mu xëy te xool a takk Sadio Mané gisoo fi cim lay la amul de ay jowa rek seen yooyu ngay dégg naabuloo yooyu ngay dégg yooyu ngay dégg Sadio mbokkam la takk Sadio dafa takk xool ak ah non lay lay Sadio Mané moo simple di way sa maam amul sa déedéet ay nii la takk naabuloo looy takk ay ay ay ciment yooyu de way joolaa yooyu la takk Sadio joolaa la indi bind ay xeetam indi ay kankuran loolu takk waaye nag jël na jël bi dafa gaaw saajo na dem nang danoo marché tey da dem nang Sadio mu tege na trop na na dem nang moom it indi trop bu yóbbu xale bi. mais mu mel ni aussi tamit Sadio Mané joxe na bon exemple que ni euh, euh, tey euh, ñi nga xamante ni vraiment dañuy takk soxna di ko médiatise dafay événement de may Radisson tey moom fi mu toll bu lu mu mënoon a soxla ci àddunaam mën na ko am mais mu def loo xam ne ni vraiment lu la aussi. Sadio bu bëggoon indi Dubaay fii Sénégal indi ko Dubaay daf ci mariage bi Dubaay lay defee indi fii def ko mais moo tax nit da ngay modeste nit da xam yaay kan nit da ngay Sadio dafa modeste modeste moo ëpp modeste moo ko may lii mu am xale bi tamit ndeyam liggéey ndeyu Sadio Mané liggéey ñoom ñaar ñoom ñaar yëpp lay seen ndey liggéey Sadio bëgg na ko xale bi takk xale bi takk jigéen bu lay am lépp ci àddina di nga dégg commenté bu ne xale bi li mu war a sol dafa ñaaw te xale bi rafet la def jongoma bindal xale bu ndaw ndaw foo bës meew génn wala laaxu nettari wala kaldu xooloo xale yi dag foo bës say seen yaram yi ay ay ay jatu kaldu jatu ko ci génne ay ceebu kari ay ceebu tiir ay vole ay mu xam sa ay la ci xool xale yi foo bës meew génn jabar dees koy xool jabar dees koy tànn jabar dees koy gëstu jabar di ko xale yi jàpp ne ni si TikTok wala si Windows wala seen taadi jël mu for mooy jour sor ko saajol yi sapa def kii léegi jom bi dina wéet du am jigéen de coupe d'Afrique bi xale yi bàyyi nañ dem coupe d'Afrique bi xale yi doonuñu demee di fenn fenn léegi dañuy ñaan équipe nationale gën a toog dañuy ñaan mu jabar Cheikh Meng kii kii jabar Cheikh Kouyaté kii sama jour bi benn jour la am équipe nationale man. ki ku gàtt ki te mënoo te mënoo joué Marseille. kan la yow. Gana Gueye man mooy sama jour ba parce que dafa correct man sama jour dama ko bëgg yàlla moo dem ma bëgg ko mm-hmm. man damaa bëgg Gana. sérieusement musuma ko gis te yàlla dafa def ni musuma ko gisante mais dama ko man dama ko dama ko estimé takk na jabaram tranquille mais xool xale fi ah, amul xale bu nekk si tooy takk gis nga nekk si tooy ku ñu takk xale ke xale bu ndaw lay takk parce que seen petit gars lay takk jóge takk nekk ci vieux mais xale yi nekk ci internet bi daan Sadio di félicité léegi jommi ngeen a jàngaleen alxuraan alxuraan la Sadio di takkee xale yi bu ko xamoon dem na jàngi alxuraan bu yàgg al xool xale alxuraan la jàpp jàpp ñàmbaram mais Sadio moom mi na def ndànk teel naa yóbbu xale bi lool saajo lu lu yàgg la def sàcc sa Sadio sàcc lu lu xewi la def sàcc xale yi ñoo lay sàcc yóbbu la mais Sadio bu nga xam ne Sadio xamut dara dem ba naan sàcc leen ma sama jàng xam ne at xam ne nga xam ne Sadio rek la waaye waaye moom it sagar la lool waaye na dem nag sa Sadio tamit saajo ma conseillé ma maa la njëkk la gën a jiitu ci néegub sëy maa xam luy sëy ah. maa la gën a xam sëy soo ko jàppee ceeb <laughs> nga jàppee ko kaldu Sadio doo arrière doo pousse doo passe bu la dóoree ëpp nga daanu bu la entraîné 60 appels dooral entraîné ba àdduna tukki mais lii génn ci yow nit attanu ko ci àdduna nga xam ne béy nañ ko ñu koy essayé bay génn àdduna ji xam nga xam nga ni neexaay boobu béy nañ ko ñu koy essayé. neexaay plaisir. laa ilaha illallah te mu lew la plaisir mu lew plaisir. surtout <laughs> gisoo nit jékki-jékki dagg dagg noppam plaisir bay ëpp wala am na am na feem bu ne la lay ñëwee ñuy xiiru ah. ñuy wuy wuy sama yaay ñuy ana sama papa dagal sama jëlal sama yére yi naa la kër gi wooy ata attendez doucement mais xam na xam jour yi moom seen ñëpp a xam seen i plaisir parce que li ñuy defee plaisir la contrôler ba interfa ngay paas tourne bal ba corner couvra la wuy dugg na bay wala <laughs> ginnaaw ay àdduna damaa bëgg ñëpp am jàmm lii laa xam xaw ma ay xaw ma ay guy gi ku ma séntu cee yaa ngi yaa ngi noppalu laay guy gi xaw ma ay waaye plaisir yàlla na solo am ah, euh, ñu ñëw nag ci li nga xamante ni vraiment fan yi tamit gis nañ coow loo xamante ni am na ci showbiz bi. Euh, uh-huh. que mu mel ni Pawlish ñu bari nee nañ lim daan wax à chaque fois jëmale ko jëmale ko ci kii di Wally mooy na respecté ay nitu démbam na xoolaat entourage am euh, euh, coow li mu mel ni à chaque fois chaque instant rek kenn day génn que mu mel ni Pawlish lim doon wax bari na ñoo xamante ni bëggoon nañ koo wax waaye amuñu woon fuñ jaar wax ko. man soo bëggee génn bi dama ko yëngal mm-hmm. ma la ñaari nit la yàlla may loolu muy man Adama bu ñu ko bëggee yëngal dañ ko yëngal mu yëngatu ba mu nekk à l'œuvre parce que loolu man ñoo ko liggéey ñoo xam Sénégalais yi du bëgg a yëngal gém ba gém bi yéeg mais bu ñu ko yëngal nag ci dëgg lañ ko yëngal ak ci ful la du ñëw rek sosol nit wala ñu wax ci nit lu bon tey déet parce que mel na ñu noonu en fait mais gém bi moom bu ñu ko bëggee yëngal li tax man duma dama xam Sénégalais du ma xewi wallaay du ma xewi dix ans waxi dof carrière su ma neexee yëngal ko yëngatu ba dëkk bi yëngatu loolu man maa ko am ak Adama ñu ne ñoo ko am ci àddina Adama laay sept mille sept mille sept mille personnes ñoo koy seetaan ci wayoo te feccoo teewoo micro defoo karaatekaawoo say wax rek la yàlla say wax rek day say vidéo nga xam ne kon dëkk bi ñoo ko moom. te guerre de compagnie maa lay nuyu sama xarit bi li ñuy wax du lu bon li ñuy jëf du jëfin gu bon am naa droit gis lu ma metti ma wax ko. Sénégal nag neexu la waxee dëgg soo waxee dëgg da lay foog ne da ngaa bon. wala da ngaa soxor wala da ngaa hypocrite wala da laa génne wala da laa romb du romb du loolu am naa du laa gis li ma naqari ma wax ko waxee ma ko bon waxee ma ko xol bu tàng dama ko wax ni rek loo xam ne war naa ko mën a wax ma wax ko ni ñi nag duñ ko comprendre nit ñi dana foog ne Pawlish dafa soxor Adamo dafa bon Adamo da wéy nit ñi déedéet am nañ am nañ droit wax opinion bu amee droit opinion am nañ droit wax ko loolu amul souci ñu ñu ñu ñu ñu bëri ni Pawlish léegi xàmmeetuñ ko Pawlish léegi euh, bu njëkkaan da daan taxaw di défendre Wally di ànd ak Wally mais Pawlish léegi dañu gis beneen Pawlish boo xamante ni daal dafa mel ni dafa taxaw doon Real Barça digganteem ak Wally. billaahi wallaahi billaahi wallaahi àdd du neexal ne fa ma xarab Wally waxul bon ni ma mel moom moo ko def nit ki bu la defee ni nga mel amoo droit di ko wax ci bon man ni ma mel du ma bon man xoolal man xoolal. ñi ñëpp a baal yi ñëpp fépp man rek maa mos a baale fépp loolu sincère la ak bëgg la waaye dama ko bëgg ba yërëm ko nit ki bu ko bëggee na ko yërëm yërëmande moo ëpp sama dente maag moom ni ma ko bëggee noonu la ma bëggee yërëmande gi am ci ma noonu la ëpp billaahi wala àdduna dafa wax ci wàllu bon barke salaatu fi kenn du gis ma xas waale ci àdduna kenn du gis ma wax waale lu bon ci àdduna parce que sama xarit la jomm naa di wax ci moom lu bon parce que xaw ma ko ci moom sama xarit la bëgg la yërmande gi moom ci moom su ma gisee loo xam ne da koy gaañ am naa droit wax ci mais boo ci waxee Sénégal day foog ni Sénégal yi ay mental ñor ay mentalu giléem muus man ku ma ci tontu lu bon te jàpp ne yow yow baaxoo parce que li wax dafa lu li may wax du lu bon saagoo ma waali xasuma waali toroxuma la waali li ma wax dafa facile waali na xam ay nitam loolu méttiwul nit ñi ko bëgg a méttil méttiwul c'est que man méttiwul c'est que man gis foofu benn porte man aw ma benn suñu giseen doom normal barke alxuraanu karim normal amuñu ci benn amuñu amuñu problème en fait amul aadama ak problème amul man problème gisuñu fi problème parce que aadama damay wax lenn pour nit ñi xam ko sama xol ni mu ma amee yërmande aadama vocal yi mu yor ci àddinaam su ma ci teg tegloon sama bakkan bu ko génne àdduna tukki. Hmm. billahi wallahi barke alxuraanu karim. billahi dafa dafa am benn wax bu ma wax dem ci guddi bañ laa fi mu ne Pawlish man ko wax mu ne ma des fois dafay mer pour génn vocal dem man ko mu ne ma waa laa ci xool bugguma ànd moom nit ab yàqu bugguma ànd moom kenn yàqu parce que dama ko bëgg day day nduru damay xeex waali o man daay xeex waali parce que Pawlish ku ne xam ne ni su ma waali bu nekkee Europe foo mën rek Europe bi damay ñëw waali fayalu ma hôtel waali joxuma xaalis sama hôtel maa ko jël sama lekk maa koy defal lépp yërmande ak bëgg damay dagg sama liggéey ndax waali mais nit ñi ñoo comprendre man ni ma tontu ko ne ko nit boo tollee ci benn nit bu déglu commentaire boo déglu commentaire di nga wax loo war taw wala di nga def loo war taw def commentaire yi des fois nga des fois say noonu sax di commentaire ci lu bon nga gisoo dara fekkoo dara gëmmal toxlu nga bàyyi lépp xam ne ñun dono li ñuy kaas méttiwul li ñuy kaas du lu bon li lu ñaaw ñun nag suñu ma ko bopp lañ ku ne waa li xam waa ni moo xool ni muy bëggee bëgg-bëgg moo ko moom duñu ko wax bëggal ki duñu ko bàyyal ki mais am nañ droit gis loo xam ne lu ñaaw la ne ko lii ak lii waroo koo def lii lii waroo ko parce que loolu laa jublu bari tamit ni Adamo euh, digganteem ak Wally ni mu mel est-ce que tamit yoon la woon ñu génnee ay audio que ni mu mel ni audio yi bu mu xasee ñëw ba tey am na ñu ngi naan Amady sax nekkatul à l'aise ci scène bi. Amady gën a amul Sina ba ñu ànd amul Facebook ba ñu amul Instagram ànd naw la lañ àndee muy ànd xarit Amady gën a aise ci àddina parce que lii muy wax lu bon saakul waaye toroxul waaye deful daray waari kese nit ñi ko indi bu ne ko indi loo xam ne dafa metti mettiwul méttiwul nga sombee. changé Cissé bala may neppe moom li ma la wax nii euh, ñu bari dañuy dañuy poser question boobu noonu est-ce que yoon la woon aada moo di génn loolu nga yaakaar ni ngeen ñu kaas comme yow ni nga koy kaasee di wax woon muy génn. soo mënoon a enregistré soo mënoon a enregistré nga xam ñàkk ñàkk jàng rek moo tey enregistré te ngay bala ngaa jógee ma jàngal fi ne enregistré parce que lii rek dafa baax ëllëg parce nga wax très bien sax nga wax très na di nga baax te bu ngoon ñooy toogaat waaye loolu moo metti tey ñoom ñoom wax naa ne ko dem ko nee naa ne ko ma ci woote daa la naa ko naa ko wax waari ñu ne ma noonu ñun doon doon defar rek waaye man ko defar du wax très bien defar ko da war a Pawlish war a wax li waay li war a ko waaye très bien Pawlish très bien kontaan naa loolu du àndandoo te waaye billaahi wallaahi man gëm naa ne dama ko bëgg man xoolal damay wax billaahi wallaahi wan gëm naa ne dama ko bëgg mm-hmm. sama xarit la yàlla moo ñu boole way na ma fépp defal na ma lépp xamal na ma fépp aw ma ko yàq aw ma droit di yàq waale mais su ma ko yàqee seen nit ñi sénégalais wala ñu maa ragal man nit ñi nañ xam ñi commentaire nag c'est normal des fois nit commentaire lu des sama noonu di commentaire lu ko lu ko lu ko ne ma heureusement ba jàngu man ko man ma ba jàngu ma

xoolu njëfi xoolu fi xoolu njëfi xoolu njëfi xoolu njëfi mais El Hadj bu waaye bu tëdd waaye waaye sant waay. ñu déglu suñu benn frère mu di délégué Amar euh, génn am ay kàddu yoo xam ne doon na ko wax euh, fee nga xam ne mooy Improd que ni Pawlish Mbaye euh, dañ leen a fay dem na sax ba dégg naa ci somme 4 millions que moo tax tey ñuy génn di yàquwaale bi nga déggee kàddu yooyu. partout kookal la allez vas ma xam maa nekk si marché bu marché am ay kàddu wax mm. euh, que ni ñii di wax ni ñëpp dañ leen a fay 4 euh, millions moo tax ñu génn tey di yàq Wally waaye Pawlish du taxaw naan day wax Wally dëgg. Ah, bi lan la ci doomu Cheikh Amar la ah, bi la ah ok ah délégué mm. nga ne lu mu wax vas-y dimbali ma rek parce que maa war naa taxaw di wax Wally dëgg leen a fay moo tax tey ñu génn di jéem a yàq Wally ah ok dan maa fay keroog de xanaa ci fay bi ci la añee parce que fii la añee barki démb barki alxuraan fii la añee fii fii la añee barki démb de xam naa fay bi moom lekk na ci parce que añ na fi ceeb bu neex keroog ba ñaanal ma yàlla defal ko jàmm délégué moom mi ngi noonu rek su ma tontu moom sérieusement du ma tontu délégué su ma ko tontoo day xew te loolu laay bañ damay ñaan yàlla yàlla may ko bayle rek nit ñi bëgg ko loolu laay ñaan yàlla waaw xam nga nit boo nekkee ci ab coow bëgg ci lu ñëw nga dugg ci ci coow yi ngay profité bu dee man du profité na wax lu ko neex waaye moom moom sama fils waaw daal na sama fils moom lu mu wax lu mu wax dama koy dégg mais fay bi daal moom a jaaxal ak ak nim ak nim moom lekk na ci 4 millions yi lekk na ci parce que fii laa moom mi ngi noonu moom day déliré dafa bëgg lu ñëw bokk ci ah, ah, xaw xalaatam la wax rek man du moo ci offensé parce que moom sa nit boo ko rawee moom raw ko ci ay wax raw ko ci ay xew raw ko ci lépp moom doo am fit looy wax ci moom la wax lu ñëw engagé ko sama sax waaw kon li ñuy wax ni dañ leen a fay pour ngeen def seen coalition yàq Wally loolu amul. déedéet moom nag nee na yoon na ay vidéo kay yoon na kii euh, xoolal ñii fi xoolal xoolal jël ko Makar yool erki yolaas yolaas yolaas waaye tuural tey waaye waaye tuutu waaye tuural tey waaye tuural tey waaye pardon waxaatal ma ci délégué ma dégg sama NFA wala waxaatal waaw te s'il li ñuy wax ne dañ leen a fay pour ngeen taxaw di yàq waal loolu amul. fay ah xanaa dafa gis sama kër gi rafet mu foog ne da yàlla mais daa solo nit moom c'est normal moom délégué bàyyi mu seet moom fii si moom a waay bëgg ma laa ko mu tàkk loolu lay bañ. waaw ndax lu ko neexee moom nag na wut bàyyi rek tuuti. Mm-hmm. ay fas yi changé changé. d'accord mais euh, euh, Pawlish euh, tey <clears throat> bi coow amee ba tey ndax yaa ngi dégganteeg waal yi. ma xool parce que man damaa gëj a génn. dama damaa jógee Europe sonn incha tey dinaa génn su ma su ma génnee dinañ gisante sama xarit la de bon coowam fii de yedd la rek waaw coowam de yedd coow yedd ngeen di jaawale waaw. yedd boobu ñu bari ni Pawlish dafa osé est-ce que moom war naa taxaw di wax ak Wally noonu. xew la rek boo xewee boobu lépp da lay yomb damaa xew mais du osé xew a ngeen di ja putain mais njëfi abama abama but turkol makko er, violence pardon ay ñu bari ni Pawlish est-ce que tey euh, war naa taxaw di wax ki nga xamante ni moo di Wally yenn kàddu yi euh, parce que Wally kilifa la euh, Adamo bu demee ba taxaw naan Pawlish naan Wally dafa faux loolu lépp yow en tant que élément Wally est war nga koo seetaan aussi. ñoo bokk élément de ñu ñëpp suñu élément lañ ñu ñett ñoo far. wax la rek wax bu jugee jug na kenn mënu ci dara nañ xam ne wax la rek te ñun suñu ku baax la waaye amuñu leen luy wax ci moom lu bon. xoolal njëf yi. mais Adama Ousseyn war naa taxaw naan Wally dafa faux. am nga numéro Adama. xam nga xam am nga ay ay waxam. bu ne bu eh, dee ñeme ko ko laaj ko ko moo gën a yomb nga may laaj li moom bu ko waxee moom moo gémminam la ñu waxee lu sama gémmin laaj ko ko moom moom bu ma coppee da ko koy laaj day xam ngeen Adama laaj laaj. Erkin. d'accord Yolas. am na solo xam naa ne xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma Play Store la nekk xaw ma PSP xaw ma looy génne. kii xam président yi ñooy génne. Hmm. Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla 2024 président Sénégal Abdoulaye Sylla borom Sénégal Abdoulaye jàpp na ma kii Abdoulaye Wade. ay ma Sylla bu leen def loolu Abdoulaye bu leen def loolu Abdoulaye Sylla ñu ay mag la xanaa Abdoulaye contrôlé la si la bul paas bul paas kenn wàll mi de boo ko paas paas paasal sa bopp yow kese réew nit bu koy xëccoo yow boobu Abdoulaye si la merci Abdoulaye avancé Abdoulaye avance morom 550 2024 Abdoulaye si la 2024 Abdoulaye penalty Abdoulaye si na solo kontaan naa ñoo baax la ku gore ku xam àddina la ku bëgg réew mi la nañ ne na jeunesse bi na jeunesse bi am gëm-gëm na jeunesse bi fonk xam ne kenn mooy président kenn la ni ñu bëgg muy Abdoulaye Sylla ko nit ñi jàppalee nit ñi xam mooy kan nit ñi xam fi Abdoulaye Sylla féetee nit ñi dañ neex jàng Abdoulaye Sylla ñëwul pour yàq réew mi dafa ñëw pour defar réew mi as borom 550 na Sénégal yi nañ manqué gëm ne Abdoulaye mooy président du Sénégal nañ nit ñi gëm loolu te day am mu bokk day am mu ñàkk bokk day am parce que président jikkoy président la yor yërmandeem baaxam goreem sincère am am parole bëgg réew mi xam ay waajuram bëgg diine bëgg chrétien yi bëgg musulman yi bëgg juif yi te président noonu mais da nga yemale ñëpp di ko nuyu suñu président 2024 yal na ko yàlla tax jàmm Sylla Abdoulaye Sylla wasalaam Aïcha mu ngi noonu ah, di leen jaajëfal di wax nag euh, loo xam ne aussi tamit message la bu ma ñor muy suñu dëkk bi Malika nga xamante ne vraiment léegi daanaka suuf si euh, kenn xàmmeetul sa suuf baay ak sa suuf maam dëkk boo fa nekkee doon kilifa ñu jox la euh, suuf da ngay xam nan nga koy organiser waaye dem jël suuf si vraiment tasaare ko da nga gis ay ndaw yoo xam ne sax dañu ñëw boo demee ginnaaw mbëbës ñu ngi gis ay hectares yoo xamante ni waa dëkk bi ñoo ñëw jéem a defar li nga xam ne mooy développement dëkk bi mais dañuy gis ña nga xam ne ñoo ne ci dëkk ba dañ koy jël di ko jox ñeneen xam naa incha allah rabi dinañ leen ko toppal parce que ñun ñor lépp loo xam ne développement Malika la dañ ciy wax kon suuf si nañ ko yemale jox ko waa dëkk bi pour ñu mën a liggéey mais duñ ko jël di ko jox ay samba yoo xam ne kenn xamul fan lañ dëkk euh, bàyyi ci sa weewu tànk mu ngi noonu di leen jaajëfal ah, di leen jox dig su suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf